Ah, yow man lan laa sekk sa nijaay bay woo sa nijaay yaa woo sama nijaay ci sama kanam maa ngi toog astafurlaa astafurlaa sa nijaay daf maa mbubb woo damay dem këram ci engagé ko de fan yii yëpp maa ngi toog di xalaat sama diggante ak yow mhm. di xool dama la bëgg a wax ne que man ak yow mën nañu avancer mais ci ay condition gis nga mbir mi ni mu demee damaa bëggoon yow ci sa jëmmi bopp demal nga toog bu ko defee ñu xaar fii ak ñaari at ñetti at bu ko defee man bu ko defee man tam ma ma takk la ci kàttanu yàlla. dama kaa deful kon xanaa damay ñaari at yooyu damay gàddu sama doom di ko wërali baayam. boo amee lan. Hmm. Pabbo damaa ëmb. mat na ñetti dégguma la gisuma la tabaski ba léegi tu dara nga ma jox man maa yor sama bopp yor sama biir. laa ilaaha illallah. ëmbi lan. si lépp lañ la waxal ne da doxaan Pabbo da nangu nit ak lépp ñu wax ci nit bi yàq sa der bu mu ne yéexet. Hmm? ma toog ni dugg si sama téléphone rek ci nit bi rek gis ko sama xol bi dee ba pare ñu jël sa photo ne ci taay. loolu tax nga ne dëgg la. waaw internet bi mu wax kay dëgg la. waaw bi noonu da ciy ne soppi da ciy ne. moo tax war a maytu ndax yow mbaay yow sax bëriwoo dugg dugg nit ñee lay dugg yow duggoo kenn du dëgg la. dëgg la nit ñee la bëgg danga ay ñu baax ñu la bëgg. dëgg la waaye ñu ñu baax ñu ñooy ñëw di la xamaas di yàq sa der di la yàq ndax bëgguñu sa digganteeg Pape Cheikh te suma sa sañoon nga changé. Jooda Mbaye. ma def ci àdduna. ruus naa ko net li sama noonu sax mu di ko dégg. est deux millions yi ma la doon wax keroog. Mhm. dama ko soxla ba léegi. non ko kay du problème mi ngi ak man. Hmm. kii boo bëggee sama dool la mi ngi man. Pape waaw dafa am jabaram. kan. Pape man lay génnal ba waaj maa takk di man lay marchel de. te sama génn ak moom yàgg na depuis ma am 18 euh, ans ba ni ma amee 23 ans nii. ñaar fukki at ñett nii Pape Pape Bol laa mës a xam. li ma la wax xaw ma nu ma la koy waxee dafa diis. jabar diis na de li ma la bëgg a expliquer. lan la Pape amul jabar amul jabar mukk ci àdduna amoon na jabar waaye dootul léegi fu mu nekk nii man maa fi nekk. Mbaye nga baal ma nag sama yaay nga te dama laa bëgg bi mooy septième fois yoo xam ne maa ngi gis Pape ak xale allahu akbar dalal rek. juróom-ñaari yoon juróom-ñaari yoon. ban xale bu jigéen. benn xale bu jigéen bu xees mi ngi dëkk ci koñ bi ci ginnaaw waaye xamoo ban kër la dëkk. loolu ak fi ngeen jaar yéen ñaar. fu ñu jaar yëpp. mi ngi Sénégal gii. ak li ma ko defar yëpp en plus. ñoo soxlawul détail mais loolu ngi fee nga bàyyi. mu ngi fii te xam naa ne avec toi dinaa ko retrouver. ah mel ni am na loolu du la jaaxal. bàyyi naa ko sa loxo. mënu la teg diir noonu. en tout metti na moom sa doomu nday nekkatu non loolu moom il faut que ñu dem kër ga wala ñu nañ lekk d' abord ba pare dem kër ga on a du suuf. lii moom yaa ngi loo mënu demee noonu def na ma lu ma metti gis nga doore dorénavant sa papa boo ci bëggee jot muy yow sa yaay di sa rak sama fii ngeen di jaar gis nga li ma leen di pareel yéen xamu leen ko sax maa ngi doog a door. surtout ni ñu agencé couleur yi nii man neex na mu trop. waaw mi ngi couleur bi rafet na. lu wàññi tuuti moi yii am na ci gamme non. non am na yëpp tay ba sa xobu tay defal ko ci lépp. série yi waaw série yi. ok d'accord façon bu ne. couleur bu ne. d'accord <laughs> déglu ma la façon bu ne. Mhm. couleur bu ne. def ci comme moom ni mu ko bëggee daal. bindal ma fii sama wifi. mais na ma teel a ah non doom nag boo bëggee dégg dëgg. Hmm. kii yooyu sama wifi. ah ma wax nii. Mhm. da nga dugg a <laughs> fekk na. salaamaaleykum. maaleykum salaam. bëri maanaam. nijaay. kon fii la place bi. waaw yaa moom fii. fii maa moom ak yeneen sax. yow su ma ngay comprendre <laughs> yow bëri maanaam. nijaay yow ay fen de. ah gis nga de xam nga man damaa foogoon ne faa nga. waaw ndeke yow deux ans deux ans fuuf bool bool. ah non jarbaat xam wane na ko de tey mag nijaay wane na ko di réewam jooju de ay réem kañ boo ko gisee xam na yàgg na. bool de ba muy juddu laa la xaaju maa judd. dafa yàgg rek. yàgg na waaye yow macha allah da ngaa bëgg garçon. da ngaa bëgg garçon yàlla bëri maanaam. <laughs> merci beaucoup. nijaay kon fii mooy place bi. waaw yi la. moom nii. waaw affaire yu baax yi day nii. mooy magasin bi ñu ma doon wax. waaw waaw waaw fii ci la. ah yal na la yàlla la far cat nijaay. yal na la yàlla a far cat. nuyu naa la de. <laughs> fay naa la jàmm rek ñu ngi sant ñu ngi sant bu baax ñu ngi sant bu baax laay non c'est très joli. après dañ koy retailler. retailler waaw. waaw oui allo. donc sax mu wàññi wala baax na. ah Kia ça va. ça va ça va merci. ça va alhamdulilah. macha allah maa ngi sant ça va ça va da soxla xaalis ñaata cinq cent mille <laughs> kii xam nga am naa ko mën naa ko mën naa la ko jox mais duma ko def bul sax hésité du ma ko def le pourquoi du ma ko def mooy que tànk xamoo ne maay sa baay tant que joxu leen ma cër li ngeen bëggu leen ko am ci man parce que mënuma am doom jur ko di ko ragal wala nga yaakaar ma yow di ma yab kooku mënta ne cinq millions nga wax non du ma la ko may baax na sax et puis dafa am lu may def bàyyil euh, après yi soo ma woowee wala ma xool lu may def dégg nga ah? ok may raccroché daa may raccroché après ko comme wala kii voilà d'accord. Euh, loo bëggoon yow loo ah, bëggoon man kay nijaay yow yow yaa ma jox rendez-vous hmm. eh, te boo ma joxee rendez-vous surtout da nga ne ma ñëwal place ori ah, ma ne naa teel a ñëw ndax bu ko defee ñu mën a toog jël suñu temps waxtaan lu yàgg-yàgg loolu rek moo tax waaye waxal loo bëgg rek yow loo bëgg laay def li ma bëgg hmm. man kay nijaay boo ma mënoon a jox benn lam rek comme hmm. lam yii boo mu ci joxoon benn rek ak jaaro bu chaîne bu simple rek maa ngi dër sax maa ngi dër bu may <laughs> yendoo dama lay jox bu may yendoo yow dama lay jox ci baax ndax ndax ndax da ngaa bëri maanaa am maanaa sax naanaa doo moromu ñooñu <laughs> yow dama lay jox ci yendoo ah, mi dax yi bu ma ko takkee dina dina mënuru de ah na xoolal xoolal xoolal chéri nijaay am. ma neex lay <laughs> nijaay yow man sama sama digganteeg yow dina yàgg de. sama digganteeg yow dina yàgg trop xam naa ne. a ah, ndax man moom daal xam naa ne. Hmm. ci kanam ngay comprendre. man kay comprendre naa ni jaay bu yàgg. déedéet daal ci kanam ngay comprendre. ni jaay ndax man xam nga def ba ma xamee yàgg na fii na loo fi bëgg yaay moom. ni jaay billaahi yàlla xam na ne sama wax ji. Hmm. bu neex yàlla du yegg. ah billaahi foo ma awalee fa laay am. Ah, ah, kuy boot xam nga nijaay man soo bëggee sama diggante ak yow hmm. normal hmm. sama wax ak yow neex hmm. waxi bool laa bëgg nga tegal ma ko fa ah, bool séqu maag moom yow bàyyi ma bool dóorul fayiwul <laughs> yéegul bésul ku daan man séqu maag waxi bool waaye moom man daal maa ngi ci yow nijaay <laughs> loo bëgg yàlla lay jàmm loo bëgg yàlla le message kii dana xam lépp dëgg la allo. oui allo. ça va. kooku. xamoo ku lay woo. waaye tu reconnais la voix. ah d'accord ça va oui ça va. wuy uh-huh. ma wax bu bëri bi mënuma ko. je te donne vingt quatre heures. 24 heures laa la may. pour ñu gisee. d' accord d' accord. ok nuyu ma kii yaa. ok bàyyi ma ok d' accord. gis <laughs> gis nga mbaw lépp lu la naqare woon ci mbaw ngaa la rek xamal ne say rongañ fer na bi nga bi nga xamanteeg man lu tax ma bëgg la expliquer mm. mbaw ngaa la mm. nijaay mm. li teg ko nii man tal waaw nag sa digganteeg Pape nag nag nag ci wax ci nag Pape non non wax dëgg yàlla bëgg naa la trop mais waxu Pape ma ko wax ah loolu ma neex sincèrement boo ma ko waxee rek loolu loolu dana ma neex xam nga lu tax ba nga man partout Pape du wax dëgg Pape amul lu mu leen waxoon naa la ko de Pape dóorul waxoon naa fayiwul attewul xeex bësul ku daal. waxoon naa la ko de. allahu akbar kuy dóor a kuy saaga. kuy dóor man kuy saaga te man damay dóor di saaga. allo Kia yow yaa ñàkk jom lu ma la waxoon. waxuma la woon yow say yaay ak sa rakk bu ngeen duggee dara ci seen papa man ngeen di jaar yow man maay sa tànt loo bëgg sama loxo lay jaar sa papa maa ko téye nii walla gëmoo loolu jarul sax ngay woote woote bu bari bi fii dara doo ko fi am ndax man maa la dul may dara xale bu tuuti laa dama gum fekk xool ma nii maa ngi nii maa ngi yow ñoo bokk sa relation xam naa bu yàgg nga léegi gis nga gis nga mbaw ngaa la hmm. li tax lii nga ma jox ni mu daw sama yaram hmm. billaahi bi may marié hmm. sama jour de réception or yi ma indiloo bi ñu amee problème billaahi ci la jël yëpp boîte à bijoux bi dem jël or yi yóbbu jël ay parom dugalal ma ci na sa rongoñ jeex na rongoñ fer man maag yow maag yow suba ngay comprendre noppi noppi noppi. ni jaay lii bopp lan la. yii moom day bopp bopp gay dee. waaw ni jaay nga ko de yii tamit yi xew ci jamono la. kontaan naa de kontaan naa ni jaay. bu soobee yàlla mm. incha allah. Mm. dinaa la defal dinaa la préparer boîte boo xamante ne. mukk ni jaay ni jaay du ma ko jël du ma ko jël. boîte à bijoux laa lay préparer boo xamante ne nii. moom laa lay indil ba sa kër. sa kër def loolu sa kër laay ñëw. waaw nañ dem léegi kër ga ni bu ko defee ci ngay comprendre yow lii lancement bi la rek film bi ñëwagul ndax yow doo moromu lii. nijaay nijaay. bil di euh, xii Pape Bol laa xam ne. su ma xoolatee mbaa mu woo ma téléphone. Hmm. mbaa mu sëq ak man dara. Hmm. justice dina am ci sama digganteeg Bambool yoon. Bambool ci boppam laa bëgg mu bama bu ma woowati bu mu sëqateeg man dara bu mu seetati samay mbokk bu mu ñëwati sama place. bés bu ñëwatee sama place. billahi dina xam ne golo ci digg lañ koy yeew. naa la ko de bu ñu xamante doo ko rëccu. wallaahi du ma ko rëccu waxoon naa la attanu la. du ma ko rëccu jërëjëf Nijaay jërëjëf Nijaay. jërëjëf macha